waaw coow yi jiboon na waaye suñu borom leeral na ko ndax ki nga xamante ni ay mag yu am juróom-ñett fukki at ñëw nañ fi nañu dañoo demoon commune de ñu ne ñu da dem seen chef de quartier mu defal leen certificat domicile certificat domicile moom may leen comme maire wax loolu moom danaa ci sawar ndax seetlu bu mel nii jaaxaloon na ma lool waaye nag maire def noonu dañuy waxtaante pareeguñ ñu ne ma moo ñu ko wax may leen ma ngi toll nii lu ngeen wax naa ko gëm ma ne leen xaaral ma dem yi ba ma dem photocopier domicile yi ba ma ñëwee ne leen 1000 francs la mais dinaa leen ko defal kenn ku ne téeméer parce que ci laay fay sama essence secrétaire dama leen di fay photocopie dama koy fay kon mayewuñ ko te nag buur du maye. commune bi damaa defe ne tey boo fa doon wut si extrait da nga fay 300 fayaat 200 muy téeméer kon yaakaar naa ne loolu moom kuy wax da ngaa war ne Modou Bousso nga doon defar ay domicile waaye waroo wax ne Modou Bousso daa dem commune jox ko ay carte muy fayu dugg ci quartier bi sëñ Xaadim ngay bëgg jàmm ngi nii sëñ Cheikh dugal ci dëkk bi nga laaj ba xam fayu naa kenn benn téeméer wala lit ndax yaakaar naa damay bind ci état bi bajaan président kii ma fi nekkal association yi kon yaakaar naa li may def leer naañ laa ci bëgg kon ba tax na dama leen di sant ci leeral gii may leeral te xam ne nii la demee ay tuuma laa ko jàppoon waaye man tuuma yëngalu ma ndax bu ma bu ma amee ndigal sëñ ji li mu kontaan ci rek ba ma ko waxee sama nemal xam naa lépp ak mag ñi rek ñama tontu rek doy na maa ngi demande nag euh, autorité di leen interpellé gis ngeen fii dara benn làmp buy tàkk amu fi lëndëm na trop te mag ñi bu ñu julli sax du ñu am jaar insécurité bari na ba tax na làmp lañ gën a bëgg ndimal nag moom yàllaa ko yor waaye lu ñu dimbale doyut xaaral li fi manqué bari na maa ngi ñaan tamit ñi nga xamante ni am nañ fi ay kër te defaruñ ko ñu dimbale ñu ñëw defar ko di ko fayal lemp wutal koy kayit ndax fi ne problème mu kayit boobu sax indil nañu problème ndax yu ci bari dañ ko daan jaay muy jaaxasoo ba taxoon na luñ ci leeral daal doyut mu ñuy ñaan daal képp koo xam nga fi pàkk